d'autorisation, Monsieur le Président. <laughs> Ah, mais pourquoi on va, déclarer Quand on déclare, là, on regarde. Il y a des gens qu'on peut refuser. Alors, ne pas ça. le bâtonnier, c'est vous, c'est vous qui tenez ces conclusions. Bon, un régime déclaratif. Je ne prends pas sénégalais, donc ne peux pas me lancer dans ce débat avec vous. Monsieur le Président, si vous souhaitez nous empêcher de donner la cause de Monsieur Sonko, allez-y. Ne cherchez pas de prétexte pour le faire. Si vous voulez quoi si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de M. Sonko, faites-le. Ne cherchez pas à prêter. Vous êtes un en, en, en, disant ce genre de choses à une cour de justice communautaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en bas pour euh, parler plus respectueusement à la cour S'il vous plaît. Monsieur le Président. vous pouvez -vous revenir un peu en arrière pour ah. parler respectueusement à la cour Monsieur le Président, si vous, vous souhaitez, empêcher, dit tout à l'heure, la, vous souhaitez la, de défendre la cause de Monsieur Sonko, ne cherchez pas prétexte. Parlez du droit. Si, vous cherchez prétexte pour m'empêcher de défendre Monsieur Sonko, ne cherchez pas <laughs> prétexte. Vous êtes, vraiment impoli. Je suis parfaitement respectueux de la Vous n'êtes pas, vous n'avez Je suis pas parfaitement respectueux de la Cour, monsieur, monsieur le Président. Pas, je souhaite aider la cause de mon client et je souhaite aider la cause de mon client. Bien, le deuxième avocat, s'il vous plaît. mooy la waaj doon wax aada taxaw. si sunu booy ba nag anam booy ba dana wax waxaat Assane fi toll ay waaye li kenn mësu koo gis waay. ay waay waay waay booy bi nañu yàqaate lii nag mooy teel a bool bool. booy daa mel ni keroog gis naa ko fi mook Assane de. gis ah. naa ko ci TikTok. booy waaw. waaw ñëw na fi waaw. gis naa ko ci gis naa ko mook Assane. soo si ziar si nañu. sunu booy booy boobu. waaw wuy ma la tudd ah. Moussa ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Ah, ñu ngi koy nuyu ngi def liggéey bu am solo. Mm-hmm. Euh, di ko nuyu bu baax a baax vraiment am. asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di jaare bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné ak di lay vidéo yi like yi gars yi zéro franc la comme ni ma koy waxee démb Baye Assane ak Soyibu ak Sanjogu <laughs> xam nga yéen li ma leen di li ma leen di tooñee yéen yéen koy def koi xam nga damay wax naan euh, télé Bawol Bawol mooy télé solution TV mais xam naa ne. buñ xoolee ba xool man dama leen a yab rek mais man tamit sama YouTube bii sama scène bii seenu bool bool dëgg la vraiment parce que maa ngi ñoom dañoo neexoo daal xaw ma nu demee noonu mais <laughs> seen plateau bi dama fay gis sama boobu parce que ñoom lu leen saf la ñuy def xam nga Baye Assane mu ngi nii encore dinaa waxati xam nga bu Baye Assane jugee rek Sanjog nee na ko suñu boy bi dina waxati dinaa waxati yow na ngay toogee si plateau ñu war téléphone nga jug dem wuy ji quoi. <laughs> non en tout cas lu may def li ngeen li ngeen li may wax yéen a koy def l'essentiel an yéen daal def la lu leen saf yéen a moom réew mi sama gars yi maa leen di fàttali maa ngi ànd ak Serigne Moustapha Sy man moom euh, Serigne Moustapha Mbacké maa ngi koy woowee nag borom butéel bi man borom butéel bi laa koy woowee parce que moo yor butéel bi nga xam ne yàlla dogal na ne mooy mooy régler situation yi ci biir kër gi quoi kon sëñ Moustapha Mbacké gi noonu di sët ci sëriñ Abdoulahad Mbacké daw leen ngeen xooli butéelam boobu mbooleem loo xam ne lu jëm ci wàllu ñaanloog seetlu yooyu yëpp yàlla suñu borom defal na ko ci ay taw feex moom sëñ Moustapha Mbacke di sët ci sëriñ Abdoulahat mbake mu ngi noonu gars yi lan moo jaaxal gars yi xam Juan Branco lan moo tax gars yi waa système bi bañ ko quoi lan moo tax ñoom mënuñu koo supporter yéen euh, président tribunal bi kii boo leen ko xoolee xam ne kii narul jàmm quoi. kii boo leen ko da ngeen koy xool xam ne naru jàmm yow prip nga jéem a provoqué Juan Branco pour lan pour jéem ko éliminer ci affaire bi quoi parce que yéen Juan Branco daf leen di déranger xam nga dèjà yaa manqué de respect parce que yaa ngi naan ko ay da ko wax loolu si xoo leen loolu. xam naa ne lim leen def ndawul quoi parce que yéen koo xam ne moom rek ngeen di bañ a gis buggoo leen koo gis fenn fenn fenn foo leen toll di ko di ko jéem a yàq deram di jéem a décrédibiliser ko mënoo leen ci dara muñ leen. booy bi li muy wax xam-xam la te da kay teg fu leer léegi boo leen demee ba nga xam ne xam ngeen ne booy bi dafa taxee ngeen jéem kaa créer ay problème di ko jéem a di ko jéem a dépasser kii day dugg si caaya pa ku dugg si ku dugg si caaya mu dugg si caaya après affaire bi jeex loolu kese la fii moom ko fi respecté nit ñi ñu respecté la boo leen respecté wu Juan Branco Juan Branco moom làmmiñam damul ci poosam moom moom damaa yaakaar ne mas naa jaar daara moom kii yëfu doo nga daara dëgg <laughs> yëfu doo nga daara dëgg dëgg dëgg la Juan Branco di def parce que gars yi dañ ko bëgg a éliminer bëgg ko humilier bëgg ko mais nanda na leen def leen ndànk rek yem leen toog leen benn place te ngeen muñ lii la yàlla dogal Juan Branco xam-xam bi mu amee yàlla moo ko may da ngeen waxtaan ak moom ci juridique ngeen waxtaan ak moom ci débat quoi mais yéen da ngeen koy jéem a provoquer di ko jéem a wax ay wax yoo xam ni làmmiñam dammuwul si posam boo leen ka saaga day fay boo leen ko dóoree day fay régler leen beneen bi si Sénat ñoom nee nañu président Ousmane Sonko nañ ko delloowaat ci list yi waa léegi yow ca Ndella Fall yow lan mooy sa problème ak président Ousmane Sonko ba mënoo jëlaat kii nga ñoo xaar ko ci biir liste yi nga jox ay fiches parrainage mu dem collecté ji ay parrainage am Thiendella fa lan mooy sa problème yow fi mu toll nii quoi yow comme layool nga ne nga ne dañoo waa état bi dañoo war a def euh, recours waa léegi waa Sénat nee nañu ngeen dugalaat sa waay te nee na ngeen jox ko ay fichier léegi où problème léegi wax leen ñu lan ngeen bëgg lan mooy seen problème instant bi parce que yéen président Ousmane Sonko bu leen ko joxul ay fichier da ñu ñuy wax lan ngeen bëgg ñu xam ñun ñu xam ne yéen lii ngeen bëgg quoi parce que yen yi nag vraiment yen yi yenn yi nag yenn yi nag mooy loolu damay damay bañ a tudd a ay yenn mooy mais yenn yi mooy loolu am na yoo xam ne bëgguñu ci egg rek la leen ngeen jox waaj ay fisem ngeen delloo ngeen ngeen ñoo xaat ko fi ngeen ko ñu woon ngeen ñoo xaat ko foofu quoi parce que yéen da ngeen di tooñ tooñ nag baaxul tooñ baaxul bàyyi leen tooñ gi ngeen nekkee ci dëkk bi delloowaat leen waaji fépp foo leen xam dem ngeen fa di uti ndam yàlla nee na leen instant bi Ousmane Sonko moo aaye fépp foo leen dem doo leen fa am ndaw donte ne xaw ma CEDEAO wala xaw ma sax aw ma ci ñoom benn yaakaar même bu ñu leen jox bu ñu joxoon président Ousmane Sonko dëgg yéen doo leen appliqué dëgg bi man loolu laa gis mën ngeen a def ah fooguma ko de Ousmane Sonko dem na CEDEAO jox nañ ko dëgg Sénégal appliqué nañ loolu fooguma ko daal parce que application boobu noonu yéen respecté woo leen euh, droit respecté woo leen constitution respecté woo leen. len luy mën tax ñu ne ngien moy tax ngeen ngeen respecter droit bobu te it président tribunal bu CEDEAO bi ni nga gisee ni non ki sama xel darul ci mom quoi peut-être nak mën na am mu mu mu tracé jaar ci digg bi joxe dëgg bi mais bu joxe leneen timit bu mu len bett de lool mom bay ba ngeen def ko seen xel bu joxe bu mu len fi ma kay jéxalé nak moy ngeen fatalikou né wa SSN logistique ñoo ngi fi ba légui yeen ñi nga xamné da ngeen yor ay conteneur yu joggé Paris wara ñew Dakar bo leen jokko wa SSN logistique dinañ leen ci défal ay xéewal yu barkel néna leen barigo bi 120 euro la bu féké 1 kilo la 6 euro kassé la yow mi nek Sénégal bëgg yonni ay bagage 6 6 kilo bi dégal 1 kilo bi 6 euro kassé la yow mi nek Sénégal bëgg yonni ay bagage Paris yónnee ko ci waa SSN logistique yow mi nekk pare bëgg yónnee fii ay bagages dakaar jaaral ci waa SSN logistique wala nga bëgg a yónnee ay conteneurs jaaral si ñoom dinañ la ko indil te du yàgg te wóor na leer na say bagages du manqué du yàqu kon nag dem leen ngeen ànd ak waa SSN logistique en plus ma fàttali leen bu leen fàtte sama partenaire li leen doon wax de mu nee woon naa leen samay rima dafa jeex instant bi indilaat nañ ma ay rima yu baree baree baree bare fan yee passé maa ngi leen doon gondi di leen won kees bi nga xam ne moom lañ ma joxoon instant bi indilaat nañ ma beneen kees mais du ma leen ko won dama leen di bàyyee numéro bi ngeen dem ci ma ñu jaay leen ay kees ngeen def ko seen congélateur di ci barkeelu comme ni ma koy faral di defee rek man tey bisaab laa dajji yenn saa yi jinjar te gis ngeen kees bi li ci gën a neex mooy dañ koy mixé dañ lay dugalal ci biir kees bi bisaab jinjeer ah ananas dugal ci euh, comment dirais lépp laa yéen daal dem leen ngeen xooli wa euh, kii waa Rima xéwal yu baax a ngi foofu noonu ay si yu naturel yoo xam ne raxuñu ci ay bagages yoo xam ne da ngay daaji bi naan ko teg ko nii muy forox déedéet yéen dem leen ngeen essayé ko rek ngeen xool yéen. waaw sax moo ma moo ma engagé woon affaire yooyu. neex dugg si àdduna bi affaire yooyu voilà amu ma chance interdit affaire yooyu ñëpp samay gaañ lañu affaire yooyu mooy loolu waaw lamb rek moo boole ak ñoom affaire yooyu. ñoom dañuy baanu baanu la boo xam ñu wax ay géem ay géem am na ñoo xam ne ñuy géemee affaire yooyu ñun ndoxtu yële ñuy wàññi biiram mu rëy boobu. ah nekk di wax wax wax wax wax di bajag bajag bajag kon jigéen affaire yooyu moo ko Tapha Gaye ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm affaire yooyu man paade man mooy loolu man awma si loolu rek laa koy ñaanal affaire yooyu koo koy fadilan koo koy fadilan jaddilan waaye am pression affaire yooyu ñu ne yow léegi na dam wax ak ñooñu ñu koy stade affaire yooyu mooy loolu dem ñibbi affaire yooyu loolu waxin la rek waa affaire yooyu loolu waxin la mooy loolu waaw